salaamaaleykum euh, spectateurs yi donc maa ngi leen di nuyu euh, di leen présenter sama sama dëkk donc euh, fi nga xam ne mooy Ile de Gorée fii leen ma xamee fii laa fii laa cosaanoo donc damay ànd ak yéen tey pour wal sama ville natale donc te c'est avec plaisir. tey yow yaay suñu premier invité ci concept boo xam ne dañ ko indi si été bi. muy parlons foot spécial été d'habitude toujours ñun ñooy déplacé wu di dem si dëkk yi di leen fekki mais cette fois-ci dañuy ñëw ak yéen ngeen ñëw vacances ñu xool un peu nan ngeen di euh, dundee euh, ak seen i xarit fan ngeen jaar donc tey lan mooy programme bi. tey programme bi tey euh, dem nañ di woon sama sama dëkk man sama dëkk fi nga xam ne fi laa màggee fi laa defee sama lépp fi leen ma xamee donc football bi fi laa ko commencé si. ci terrain bu ndaw bi. parlons foot spécial euh, donc été avec Bayal Sall notre premier invité donc ñu ànd ak moom. maa ngi di placé Robert léegi ñu koy woowee Babacar dafa tuub donc moom moo ma tuddee sama sama turandoo euh, kii moom mooy Yoro donc capitaine euh, Fall euh, donc moom tamit sama ami d'enfance la ñoo ñoo màggandoo defandoo lépp donc kii moom mooy Bibala donc euh, moom tey mu tudd Pastore suba mu tudd euh, ay Ibrahima Bit donc sama copain la moom tamit donc euh, moo sama grand frère ñoom magandoo mais voilà grand frère Ibou sama meilleur ami tamit mais donc sama sama xarit la donc bu ñëwee ñoom lay nekkal vacances su ma bëggee jouer match de gala et donc kii moom moo la donc bu ñëw fii fekkuma fi mais bu ñu xamante ba léegi ça va quoi parce que ku baax la. maam Thierno lañ may wax euh, man maay euh, euh, dama joué si en même temps bi association la civil society man maay en même temps président association bi. waaye waxuma la xarit romb nañ xarit ci mom quoi ñun on se prend pour sa famille bopp parce que déjà man ak moom ñoo bokk ensemble Baye il a joué avec nous bu du affaire de Siko on a joué ensemble au football nii suñu groupe nii ñun rek. temps ñu doon joué naka booy di joué potu meew potu meew déjà ça a débuté là mais après ñoo doon joué ndoo Siko moom dafa doon joué à Siko si ñun nii ñu nekk booy quoi kon je pense que suñu participation la rek mais c' est. dégg nga Yoro moo ne moo xëy la moo xëy Yoro moo ma dara man la joxoon naa ko moo xam ne nu mu demee moo xam ne nu mu demee. wóor na yaa ko wax yaa ko wax. yaa ko wax kan. la wax mon père man naka laa waxee euh, mon père. yaa ko wax kay. man si naka. non yéen man nu ma père. tey yaa ngi église ba. loolu xam ni nga église kay. waaw dama église ba. man kay du man man kay wax man daal. nga may wax ba yow yow. Nioro la de Nioro moom moo ne ma. Nioro wax la ko. ah mais yaa ko xam da ah. nga ko xam. ma nga ñëw di ma di ma saytu. waaw daa xam histoire ba pare bëgg na ko <laughs> mu xam histoire ba pare bëgg na ko sëf. non man naka moom war na xam naka laa koy wooyee. the African side. Anytime you need sweet African vibes, I'ma be here for you, babe. To do what I can to make sure you stay paid. No, no, sit down. Just a little too articulate. Je suis qu'à toi, pour toi, pour toi. waaw man maa Jean Diop pratiquement toute l'île ma connais maa ko jàngal fay bayal jàngal entraîné naa ko football aussi temps ñi football nawetaan avant mu jógee ci euh, dem ay góor ak ay douane ci ñun la nekkoon xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax bu baax la nag et dafa sérieux yaru na et puis defe naa li mu mën nii dañ ko koo jàngal fii ñi ànd ak moom ñun ñi ñoo ko jàngal lépp lépp lépp Djibi Albert jàngal ko football xam nga Djibi Albert Albert Ndiaye moo monsieur Vert moo ko jàngal football mën maa ko jàngal fii about you. You make me wanna cherish. We'll never be without you. Long as the love of letters. Beautiful red carpet ready. Never need a guest list. Escort my queen to me. Beautiful royal empress. You see this empire with you I'm building? You're so supportive of the God and how you love my children. I always want you in my arms just to absorb the feeling. So I can walk you to my mom's and show her what we're sharing. Everything about us, I wanted more, more. Let me take you to places you've never been before. Well, if we time or not, go ahead and time for me. My little soldier mommy, love how you ride it for me. def nañu sunu première étape Gorée donc euh, maa ngi leen di tàggu pour sunu étape euh, numéro 2 bi nga xam ne moom lañuy defee côté Dakar ci capitale bi. tax ma teeroo ko ak lii ndax euh, dafa nekk jëkkër bi nga xamante nekk nekk nii man dama naan dama yéex a xamante ak moom li may réccu mooy li ma yéex a xamante ak li ma yéex a sëy ak moom boog lay réccu yu bëri ba mu jël poids en fait. waaw waaw loolu moom. loolu loolu dëgg la. début sëy bi loolu dëgg la parce que xam nga. dafay jóge entraînement. début bi dama koy yërëm parce que mooy dem mooy indi. bu ñëwee li ma wax mooy ma def rekk mu lekk bés ko mu naan waxtaan ak moom bon xaw ma woon régime footballeur au début mais léegi xam naa waaw. boobu boobu mooy door a takk jabar la xam nga rek noonu waaw moom moo duggee si néegum sëy moom nga doon bees moom boo réeree sax sa gisat sa gars yi la sax dañuy comprendre na xam ne voilà quoi instant yaa ngi si néegum sëy te néegum sëy moom mooy que kenn du la gis waaw waaw mm-hmm. boobu mais moment boobu sax moom man je pense que du moom. parce que je pense que du sax moom parce que. man je pense que benn côté man la benn côté tamit mooy ma waay nga xam ne dañu a ci six mois xam nga après sama bopp bi newatul woon ci football donc man j'avais la tête aussi ailleurs sama bopp nekkoon ci football donc après voilà dama doon def lu ma neex quoi. jigéen amul droit tudd. boo ñëwee ak sa jëkkër ci kaw ngay toog doo wàcc fii waaw. moom ba ma fii moom sama gars yi ñoo fii ñëw donc ku fi indi sama gars yi sax bu ñu ñëwaat seen soxna sax damay naan soxna fii dem leen ci sama soxna toog leen foofu fii ñun dañuy toog voilà teg suñu tien seetaan suñu télé wala jouer suñu play ak sama rakk yi tout ba ay mu ñëwee vacances moom presque bu ma génn sax su ma jugee fii sama gàlla mer laa demee fajar fajar la ñuy nelaw et tout quoi parce que euh, cadre yi nga xam ne mooy euh, cadre kii national yi donc yu moment yi je pense que c'était benn moment bu xawoon difficile am ko waaw. waaw bii nii parce que moment bii moment Amar Traoré mooy bu ñu dem Coupe d'Afrique 2012 donc euh, xam nga lu ñuy vécu ci Coupe d'Afrique bi moom c'était très difficile. donc yii yenn euh, cadre la yi nga xam ne sama yenn. voilà ñoo ma ko jox. ba pare am na yi nga xam ne sax cadre gu ma ko parce que. Euh, lii man maa ko defal personnellement maa ko cadre man comme nu ma neexee personnellement du cadre moo ko def man maa ko def. yaa ah. maa ko defaral sama bopp. maa jënd cadre après ma lem may cadre ko affaire noonu mais euh, dama bëggoon comme nu ma gën a gaaw rek defar ko mun naa sama gars yi kii li parce que dama xëy defaraat. voilà. kaa présenté leen kii sama <laughs> copain la. <laughs> Ahmadou Bamba bi mooy Bamba Gueye sama waay la. Mhm. Nos jeunes de voilà nos jeunes de police ASFO voilà depuis ay ma xool mu yoon année 1998 non petit catégorie bu ñuy joué en cadet maanaam moom la ñuy joué donc voilà ñu seqoon fa coloré jàmm lañ seexoon moom la ñu mosoon seq foofu mais dafa doon tamit nit mi nga xam ne tamit dafa am coloré quoi moom toppeewu ma ngir waaw Bayal Sall bi ñu ñi di dégg teel donc topp maanaam moom dañoo ànd démb may dem këram moo ñëwee vacances may dem këram bu ñëwee moo ñëwee vacances day ñëw sama kër. lu ma ci waa rek mooy euh, bayal ak soxnam si toog euh, muy yaayam muy toute sa famille ñëpp dañ may toog sax di ma woo baax si lan nga nekk affaire yooyu quoi mu toll yow lay wax nii am moom je ne trouve pas les mots kii aw ma fayam kii tey fi ma dëkk tey fu ma dëkk tey mun naa ne tey tey euh, fu ma siggee daf moom la. su ma solee may wu rafet moom la dal yi rafet moom la téléphone bu rafet moom la mu suma benn problème su ma su ma su ma su ma su ma su ma tey. non je ne trouve su ma jooyee jar na ko parce que mu jawaram yi tamit toog nii si si wet kii aw lu ma naqari lu am feet day ñëw woone ma Bamba kaay ñëwal loo bëgg ñëwul lu ma sol fu ma solee jeesneer sax kii toog la équipe nationale su football fii une heure deux heures la veille daf may wane ma booy kaay hôtel nga ñëw jël plus de deux cent am na ay am na ay banderole benn gi nii mun nañ ko wane mu ngi nii sax bii gars yi ñoo ko defar pour moom te mun nañ ko wane tey tey mu ngi nii tey yàlla seere la te ñoom ñoo ko defar tey pour ay booyam ay booyam ñoo ko dili te ñoo ko dédication woon tey équipe nationale doon joué dañ ko doon takk ci suuf ñu ko doon wane mu ngi nii lépp ñoom la jàmm gën lu jógee Comme euh, vous vous en êtes rendu compte tout au long de la journée, nous sommes euh, donc euh, à la rencontre de Bayal Sall, international sénégalais. Alors euh, déjà, on le remercie hein, pour l'accueil qu'il nous a réservé. Depuis Gorée, le périple a été très long. On a pu voir des membres de sa famille, Ici également, euh, sa femme et bien sûr euh, ses frères, sa famille. Mais là, quand même, c'est l'instant pause. Et quand on dit pause, dans Parlons Foot, on va parler bien sûr de ballon rond. Donc, euh, Bayal, nous de l'Ouad Et puis, euh, surtout, la par rapport ak actualité équipe nationale lu tax bi yoon gisuñu la en fait ci équipe est-ce que Giresse daf la teggi parce que peut-être tu n'as pas donné satisfaction lors du dernier match ou alors il y a d'autres explications non c'était c'était juste que que dama gaañ woon moo tax parce que même match aller bi dama amoon adducteur donc li euh, nga xam ne après après match Guinée bi toog presque trois ou quatre matchs que joué ma donc euh, non mais c'est pas question que de satisfaction mais c'est juste que euh, moom xam na ne dama gaañoon te. jokkoo woon ngeen si. waaw jokkoo nañu waxtaan nañ parce que maanaam moom la ñuy waxtaan souvent dañuy waxtaan. donc la ñuy waxtaan toujours. alors bon gis nga ni quand même si éliminatoire yi deux matchs yi résultat yi ñuy def. benn match mhm. nul ak benn victoire. Mhm. Euh, am na benn duo aussi bu ñu gis Kara Sané ñu bëri rafetlu ko yow mhm. noonu nga ci lan nga si sa jàngat et puis comment tu apprécies justement les les prestations de l' équipe nationale du Sénégal. waaw euh, jàngat ma ci am si si si match yi donc def nañu ñaari match yi nga xam ne pour man c' parfait parce que. équipe bi yëpp dans la l'ensemble équipe bi euh, gardien jusqu'à jusqu'à l'attaque donc euh, def nañ travail bi nga xam ne ku nekk moom la war a def surtout dernier match bi donc man gis naa dernier match bi franchement c'était benn match bu la équipe bi bëri na concurrence mais c'est comme ça man je pense pour man c'est c'est c'est bien aussi pour l'entraîneur parce que c'est dina permettre tamit euh, kenn du ne place bi man maa moom ba pare di si def lu mu warul def toog jël grosse tête wala dinaan fii dama neex laay def après bu joué mm. waaw amoon na fa ay jamono ci loolu mais nii équipe bi bu amee concurrence donc est bien un pour les joueurs aussi c' est bien aussi pour l' est bien pour euh, pour sénégalais pour nga xam ne tey képp n' importe quel poste n' importe bi nga xam ne mën nga fa teg day dafay woon plus que que li mu woon donc loolu je pense que c' est loolu mooy équipe c' est une chose mm-hmm. moo gën que ñu teg benn jour bu fi nekkul rek apparence bi day kii bi day feeñ. absence am bi donc je pense que ñu mel nii c'est bien parce que concurrence je pense que jour bu nekk professionnel waroo ragal concurrence parce que je pense que club championnat club euh, championnat bi ngay joué sa euh, club moo ëpp concurrence di nga gis benn comme défence centrale ay six jours défense centrale yu fa ne donc voilà comme équipe national tamit c'est pareil donc je pense que loolu. lu baax la lu baax la pour équipe bi lu baax la pour entraîneur bi lu baax la pour. ragaloo leen ko daal maanaam. non non non kenn waru ko ragal sax parce que je pense que sa mën-mën boo ko amee. Mhm. te nga wóolu sa bopp nga xam li la tax a jóg. je pense que doo doo ragal concurrence. je pense que concurrence c'est important ba pare li nga xam ne dafa bokk ci football waaw. alors Bayal euh, dinañu c'est vrai équipe nationale bi wax nañ ci mais li waral d'ailleurs ce retour en équipe nationale c'est parce que da nga dellu si waat sa club donc hmm. ren saison bi nga def peut-être ñu ne c'est peut-être l'une des meilleures en tout cas sur le plan statistique c'est l'une des meilleures parce que sa a été même sanctionné par euh, on va dire un trophée coupe de la ligue bi ngeen jël hmm. donc euh, fi nga jógee ça xam nañ ko deux trois saisons yu jafe. nga dem mm. non si n'a pas marché. Mm. nga dellu si waat xeexaat. Mm. léegi ñu bëggoon nga tirer ñu un peu le bilan de ta saison. waaw ah, man sama bilan saison bi donc je pense que pour moi c'est parfait donc parce que euh, toog naa fi presque deux ou trois saisons ki nga xam ne xam nga joué ma régulièrement et voilà ça se passe pas comme je veux et voilà donc léegi. année bii def naa saison bi nga xam ne kontaan naa si parce que toog naa saison nga xam ne joué ma léegi match yu ma joué match yi nga xam ne tamit match moom ma indiwaat sama plan de carrière match yi moo indiwaat saison bi am na ay match moom ma delloo si tey ba ma mën a joué ay match régulièrement voilà comme match contre Paris donc dafa doon leer nag. sa ni nga si Ibrahimovic ba. Enfin, euh, les, les, la presse en a, en a beaucoup parlé keroog foog naa peut-être c'est l'un des meilleurs matchs de ta saison. waaw pour man sama meilleur match la parce que match bi nga xam ne même pour tutu pour être titulaire match boobu noonu xaw ma ko sax. Mm. xam nga je le savais même pas parce que président bi moo ñëw ne ma aujourd'hui il faut nga defal ma match bu rëy ba pare nga defal ma match bi nga xam ne bu ma gis li nga xam ne mooy. Euh, muus bi nga xam ne moom depuis 2008 moom laa bëgg a gisaat tey ma ne kon saison bii dama bëgg a nekk man maa ngi maay muus bi nga xam ne tey saison bii mooy gën a grave bu mu defoon 2008 donc après voilà ma concentré wu si match boobu parce que match boobu dafa amoon importance si man waaw dama xam ne su ma defee mauvais match rek daf may donc après ça permettre ñëpp di naan ok. jeexal na fekk ne yow ay tolof tolof mu la jàpp na ko yooyu mm-hmm. noonu ndogalu yàlla mm-hmm. maanaam mais match boobu donc day nekk rek wala du ne voilà donc moo tax ma def def si sama kéttulaay kattan pour nga xam ne pour mën a continuer jouer saison bi yëpp parce que voilà bëgguma toog nii bañ a jouer parce que football li ma bëgg la moom. c'est te ren tamit dañuy wax ni que consentir nga aussi ay sacrifice parce que oh, dañ la wax nga wàññi sa salaire nga nangu ko pour mën a toog si club mais bay daal de manière générale mën nañ ne football aussi ça va très vite parce que yow amoon na moment boo xamante ni vraiment mënoon nañ ni que euh, joueur boo xam ne tu étais vraiment porté au devant média yi di wax si yow ngay def saison bu baax et puis deux ou trois ans après affaire yi euh, ni mu tuddee tourner comme on di yow loolu lan nga si jàngat est-ce que may na la tey benn maturité boo xam ne di nga mën a gérer sa carrière d'une autre façon ci at yi di ñëw. waaw loolu moom. maturité bi ma ci am je pense que su ma jaaroon foofu du ma gaaw parce que foofu noonu peut-être que amoon naa tuuti expérience parce que dama teel a football ak ñi nga xam ne ñoo ma mag voilà donc euh, maturité bi nga xam ne amoon naa ko foofu doon na ma yóbbu fenn mais fépp fu mu bëgg mënuma woon yóbbu mais yàlla mu dogalee ma amoon benn suspension yi nga xam ne foofu la commencé ndong-ndong bi foofu la commencé après fracture donc foofu la ndog-ndog bu commencé et tout mais lim fu ma jaar nii tey fu ma jaar tey waaw ba tey yàlla def man ma ñëwaat te bett ñëpp bett ñëpp te ñëwaat tey ak forme bi nga xam ne moom laa indaale jox na ma expérience bi nga xam ne tey expérience bu doy waar la ci man parce que gën naa xam si sama vie léegi ñu ma koy doxalee. gëm naa gën naa xam sama plan de carrière naka laa koy doxalee naka laa koy gérer ak xam fu may teg sama tànk waaw xam fu may teg sama tànk bu baax. alors Bayal ñu ngi jeexal interview bi peut-être nga wax ñu aussi sa rapport ak sa famille lan la famille di def ci yow est-ce que surtout que bon on sait comment ça se passe dans le milieu professionnel c'est pas toujours évident. Hmm. waaw xam nga football waroo am benn souci c'est football waroo am benn souci li ngay xalaat. moo tax ñu naan professionnel bëgguñu ñoom ñu toppatoo dara en dehors du football dañuy bëgg toujours seen xel ñoom ñu réfléchir ñu xalaat ko football. mais famille di tax mu important parce que ñun africain ñun dañu bëgg ku ñu jege mooy que sa papa sa yaay jege la sa jabar ak say doom jege la say goro yi jege la say xarit yi ñëpp ngay dugg du ñoom di waxtaan ak ñoom donc loolu force la lay jox parce que da jox force bi nga xam ne doo fàtte fa ma jógee. donc te loolu c'est important. am na ñu koy fàtte nag mais nit boo amee foo jugee xam famille bi nga bokk am na yenn je pense que waroo ko fàtte mooy que sa famille sa famille sa àndandoo sa xarit sa jabar say doom say goro waroo leen fàtte parce que li nga xam ne lu mu lay jox si sa wàllu football mooy que da jox force da jox chaque fois que boobu waree def na ko su du noonu boo leen xalaatee rek nga bàyyi. nga changé yoon xool mais xam nga nii boo ko defee du yow dong lay metti wala du yow dong nga yàqal di nga yàqal ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi sa ginnaaw donc euh, loolu moo tax famille c'est très important moo tax euh, euh, am na solo am lool. waaw bu baax bu baax bu donc pose foot bi jeex na donc dañuy continuer visite bi xam naa ni laa dañuy dem seeti sa parents yi. ñu leen di fàttali ni vous êtes euh, dans un numéro spécial on va dire parlons foot spécialité c'est ce qu'on va faire durant tout l'été aller à la rencontre des joueurs parce que souvent comme je disais tout à l'heure à Bayal. ñun ñooy dem fekk ci joueurs yi mais ñoom bu ñu ñëwee vacances ils n'ont pas forcément notre temps bah, du coup on va les débaucher partout euh, les débusquer partout en fait gis aussi ñoom nu ñuy dundee seen été ñan ñooy seen fréquentation ñan ñooy seen i xarit donc instant yi nii ñu ànd ak euh, Hamza Diallo ak Papsila donc di wéy ci parlons foot spécial bi tey nag suñu premier invité on va dire que mooy suñu ko cobaye mooy euh, Bayal Sall et je pense que ni mu koy defee moom depuis lors def na lu lu rafet mi ngi koy teg ci yoon donc ñu continuer rek euh, gën a xamante ak Bayal ay sa famille. non non naa raw naa man dootuma noo dalaat. sawaay noom na man dootuma nombaat ndaw si ma gisee bi ma gisee defal na ma teranga ak mën a waral lii non na lii dootuma ngalaat non na raw na man dootuma nombaat non na non voilà yegg si nañu sama gàlla maire Sacré-Cœur 3 donc voilà dañuy yegg si biir ma présenté leen ko ak famille bi yëpp donc euh, nañ yegg si kii sama yaay la. sama doom la sama doom la sama doom la sama doom di baax ci man di am ci man yërmande di ma bëgg yaa booyam di ma sagal yaa booyam sàll ngaari la ma bëgg de di bëggul lu ma naqari yaa booyam nekk na gone ba ni mu nekkee man musul tàngal sama xol bi musul tàngal xolu kenn maa ngi lay ñaanal fan gudd ak wér gi yaram yaa booyam loo man ren yal na nga mën déwén lu ko raw ci barke rasulullah nga sedd la sama xol bi yal na ko yàlla sedd la sa xol yaa booyam ak sa yàlla ak sa teggin daa nga loo xam yal la yàlla sama sama la sama doom sama baax ji seddal suñu la macha yàlla guddal fanam def yaayam mu juddoo ci sunuy loxo màgg ci suñu loxo tabaat fakala macha allah man bayal sama rakk la sama rakk bu baax la aussi duma ko gërëm dama koy ñaanal parce que vraiment bu mu duggee ci foot bi ba léegi yàlla ubbil ko ci ba léegi tamit daf ñoo noppal rek parce que vraiment lépp lu nekkoon charge ñun bu ñu doon def ñun en tant que aîné daf ñu décharger yëpp nañu lépp man maa koy def muy ci dund bi toppatoo paa bi mère bi ñun nag bàyyi ñu suñu loxo lu ñu am lu tuuti dinañu ñëw bokk ak ñoom mais majeure partie bi yëpp teggin nañu ko man mi di wax lépp ci sama loxo lay tegu fin du mois chèque bi si man lay jaar maay jëli maay dindi maa maay fay facture maay fay lépp lépp nécessaire bi yëpp ba ci tabaski korité tout depuis lors lépp lañu ñu teggin. kii sama grand frère la man maa topp ci moom. donc moom euh, léegi mi ngi. mi ngi ren foofu lay day basket day liggéey di basket. donc mais si niveau bi nga xam ne c'est pas professionnel professionnel quoi mais mi ngi basque si équipe bu bien ba pare euh, mi ngi siy góorgóorlu la maanaam mi ngi siy góor bu baax a baax donc moom moom moo nekk ren sama man maa topp ci moom. Eh, Bayern moom booy wax ay affaire moom am na lu bëri bëri bëri ci mën wax ah, même depuis temps euh, añ noonu añ mais moom du ñëw añ sax il tout son temps nekk di jouer football et puis voilà moom parce que tamit lépp loo gis léegi nii rek parce que moom daf ko daf ko voilà daf dafa def le maximum quoi Bayel c'est un c'est a toujours travaillé dans le football gars yëpp <laughs> loolu la loolu la nga musul dem ay ay boîte bi nii wala dara saa yu entraînement wee su paree entraînement mi ngi toog diwaan moom xam nga mi ngi doon dox parce que maag moom ñoo bokkoon chambre ñoo bokkoon même ne quoi donc sama passé beaucoup de temps ensemble quoi on a passé du temps ensemble ici on a passé du temps fële quoi là-bas man j'ai eu la chance que voilà damay dem stade dama dama koy seetaan affaire yooyu mais mais franchement c'est une xam nga nu ngi koy waxati en fait c'est man man man je je suis fier quoi man je suis fier en tant que frère. en tant que frère je suis fier man su ma toogee nii di seetaan même même foofu damay dox sax ñu naan ma waaye j'ai vu ton frère il xam ah, ah, il a fait un match comme ça c'est ce genre de chose là ça fait vraiment ça fait ça fait vraiment du bien quoi man voilà. waaw ki euh, ngeen gisee photo bi nii nii mooy sama papa donc euh, moom euh, vendredi bi nii bi ñuy passé la la ñibbi. naa ban sant yàlla di julli ci sang-sang yi maa ngi tudd Rose Sall. maa yaayi bayal jigéen buy jur te jur benn doom jur ñaari doom comme bu mu ëmb rek xam na doom boobu na mu ci biiram ba ma ko ëmbee juróom-ñeenti weer nekkoon na gisoon naa santiroon naa daal na kii du nuti neen bi mu nekkee xale jàng na waaye bi ma ko xoolee xam ni njàng bi du dem ndax ku nekk li nga bëgg nan la ci topp bayal bu ma saana tu toog tuuti feebar rek tuuti rek su ma jëlee bal uufal ko day jóg ne bëreet jël bal bi génn dem terrain football del si waat su jógee nekk ca néegam ba nekk fa fa lay nekk du am kenn affaire du am kenn wax kenn xamul ko da day toog man ko bayal lan la da nga bëgg a entraîner mu ma waaw man ko lan la mun daal di sëgg man ko da amul paas mun ni mu daal di yëkkati paas jox te xam ni rek ku jàppale si doom yàlla jàppale la ba ma ko jàppale itam rëccuwu ma ko de wallaay la jim léttu ndax fii mu toog ni bu dee sama mandat de yëpp bala ma koy téléphoné ne ko mandat bi yéex na du ma ko wax musuma ko wax musuma ko wax mandat bi yéex na ration bi doy na lépp lu ngeen gis fii ba ci si kaw ba ci suuf yëpp bayal la en tant que yaay seen papa dafa mas a am biti ci ginnaaw bi mu amee biti ci derrière de de fi ngeen nekkoon ci néeg boobu su ko fa bàyyee am na benn xale bu góor bu nekkoon foofu su masaana wax ak moom da ko naan man bu ma yàlla mayee dinaa gëndal sama yaay kër dinaa ko yóbbu mag yóbbu sama papa mag ñu toog ba benn bis xale bi wax ma ko ne ma mère mun naa mu ne ma payal xam naa ne bis bu ko yàlla mayee gudd fan de li mu fas de ko def te li mu fas li ba ko yàlla mayee ndam lu mu njëkk a def ci xaalisam soxlawu ci dërëm màkk lañ ci njëkk a yóbbu maag baayam ak bi del ci mu yóbbu tàntaan muy sama doom jag joo xam ne gi nag ba ñu ma samay doom de ndax ki ngeen doon waxal te mu dër topp ci ginnaaw muy sama doom jag lu ma bëgg ma ne ko bayal mu ne am ko wax naa ko bëgg de man ko bayal su may wax ak yow mu ne am ko dafay mel ni glace lan def sama xol bi waaw loolu xam naa ko man ko xamul tax ba ñu mën ak samay doom ñëpp laa bokk yemal ndax ween bii la mu naam ak bii waaye yàlla ma koy def ci nit man su may wax yow rek sama xol bi dafay sedd bu dee ndey lu mu ñaanal waajur lu mu ñaanal doomu am sama xol bi nu mu sedd yal na ko yàlla seddale noonu barka salaatal faatiha nee naa ko bayal mu ne am ko booy football mu ne am ko deema woo dëgg la de day football di ma woo bala mi pare dinaa ko ñaanal dinaa ñaanal équipe nationale bépp ndax ñëpp samay doom la la saa yu ne football ba démb ci mu ngi dama yor sama kurus di def sama yàlla tamit di ñaanal ñëpp ku ci gaañu mu mel ne bayel mu tëdd gaañu su footballee ak suñ ko jëlee ak suñ ko jëlul ndax waa équipe nationale bi samay doom la su bayel toogee ban tey ñoom ñëpp ni gañam ngi mel ne bayel gañal bayel nekk fi nag am ay te kenn musu koo xam kenn musu koo dégg kenn musu koo gis mu dégg mu rawandi bi non na non lii Bayal, vraiment, je vais vous euh, souhaiter une euh, belle future saison, comme Merci. on dit. Hein, euh, beaucoup de bonne chance, continuation. Merci. Notamment en équipe nationale, parce qu'il y a des échéances qui arrivent. Merci. On espère que vous allez réintégrer le groupe. Merci pour l'accueil. Merci à Son Hibou, qui a été d'une aide énorme, qui nous a accompagnés tout au long de la journée. Son Hibou, bon, de toute façon, <laughs> c'est mon complice. Je le remercie infiniment. Je remercie la famille de Bayal Sahal. Je le remercie également pour sa disponibilité. Merci à Papsila et à Hamza, qui ont été euh, des monstres aujourd'hui avec la caméra, la perche, ça n'a pas été évident. Voilà, donc parlons foot spécialité, ça va continuer. Merci de votre fidélité, à la semaine prochaine. Au revoir.